Euh, naafila weeru koor yi ñu di ko jëlee ci téere sëriñ Sooy bi ñuy wax xoratul xay ni ñu fas yéene tey dikk ak yéen ci guddi ñaar fukkeel ak juróom-ñaar ak juróom-ñaar ku ci julli fukki rakka ak ñaar rakka bu nekk nga jàng faatiha benn yoon ina ansalnaahu fukki yoon ñu baamtuwaat leen ko guddi ñaar ak juróom-ñaar ku ak ñaar rakka bu nekk nga jàng faatiha benn yoon ina ansalnaahu fukki yoon